man Thierno Samb laa ah, ah, ma jógee juste non seet naa ko bi oto bi bi muy tëb dama egg si juste ñun ñoo topp seen ginnaaw bi muy tëb laa daal chauffeur bi oto ba dem na oto bi la jógoon ñoom dañu jógoon Mbour dem Touba après ñu retourné di delluwaat Mbour après laa laaj kii ma ne chauffeur bi taxawal quoi sapeur pompier moom moo ñu arrêté noonu pour ñu dimbale waay ñu ñëw fekk kenn ki blessure bi garaaw même période bu ñu koy dimbale blessure garaaw na ne ko deewagul ba léegi nii bi nag nee na daa mel daam lu ko traversé quoi moom nee na ne ñett lan am na keneen ku tëdd ku yor beneen kii moom maa ko wooteel seen kër sax sama téléphone pour mu wax seen waa seen waa kër ne leen dañu def accident encore mais chauffeur bi moom ma ko ma exchange moom ko dafa dama am lu ma traversé ma ko doon moytu moo waral moo waral mu jéggi parce que fële la jógee juste fële ne ci la jógee pneu bi tëb après bi mu dal sax avant bi kii ñu noo fi njëkk moo ak chauffeur bi chauffeur bi ne ma loo téel ma keppal ma loo si pour ma xëcc ko mu génn instant bi ci loolu daal laa ci amoon lu may kii euh, apparemment li moo parce que ñun oto bu ndaw la yor mooy tam muy kii mais vitesse moom carrément xaw ma woon ci li mu nekkoon mais li mu doon daw xam naa bëri na parce que ni oto bi jógee fi mu jógee ne ñëw fii li mu doon daw bëri na parce que juste fële la jógee avant mu yegg si kii bi toj après soog a ñëw fii mais waaj ne daam lu daa daam lu ko traversé ma ko doon moytu waaw woo ko waaw woote nañ waa ji na Thiès ñu ne ko ñu ngi pas bële commandant kii la mooy tax woote nañu ne ko juste ñoo ngi ñëw mais ba léegi ni il fait 30 minutes presque gisuñu kenn parce que autoroute bi war normalement war na am sapeur pompier boo xam ne nii même pas 5 minutes mu ñëw kii parce que diggante bi dafa sori fii ba Touba da ngay daw ba kii doo gis dara loolu dimbale bu fi dara amee doo gis dara loolu kii ñaaw na trop daa yaa 30 minutes booba léegi sax mënu gis dara ñaaw na trop wax dëgg ñun ñun ñooy mujj ay bonne volonté ñooy mujj gaare seen oto